يالله تخ ما بغل نو ميل تي يالله رك نون لا لاي بغي حبي في الله وبغضي فيه لي او سلاما كنت اصطفي يالله كسير لا جام ولست اعبد دواما غيرك يتم جيب دا بو خاني مو دا بو سي سون بروم رك لا نه صارفا همتي لربي تعالى واخني تام ني من دما دما فادو ci akwan yépp yàlla kese moom laa nekkal ribtu anil akwaani bil mukawwini dundam musta jàmbat wala mu ñaan ku yàlla inni ila ولم أكن لسوى المغني بمفتقر أستكي الدر للمخلوق مجتديا من بعد كوني عبد الله بن فقر لو وخرج لو بري بري مستطاع لوخم كوما يلا مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت, وقت غربتي حمقا talal keneen loxo ku may suñ borom loolu ak ndof laa ko jàppe musula noppi ci tagg yàlla yallaahu ya hayyu alladhi laysa yamut ma li an thana alayka min sukut fa kayfa askutu an thanaayi alayka ya dal ardi was samai am kayfa askutu an ridaayi anka wali qad kunta kunta bila iadaay am kayfa umsiku an ash shukri wa qad anamta bil al-kathir ya ahad wax na ci lu baree bari na yàlla kese laay tagg te mënuma noppit ci di ko tagg ndax li mu lépp ci yonente bi day dugg ci yàlla wax na ne bëgg gi ma bëgg yonente bi yàlla tax amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn ju genn jublu pour Sëñ Tuubaa